léegi nag ah baa ngi toj. mu xaddam Abdoul Gani. ah non kooku suñu waay la bëgguñu loolu borom Angleterre Seydi Ramou. waay la Seydi Ramou Diallo. <laughs> taaliba Maolana Cheikh Ibrahim mu xaddam kontaan nañ ci yow. morning to you. good morning nañ everything di jaale tamit mu ngi jaale tamit Linguère. waaw dañu ñaanal jàmm. nu mm-hmm. ñu topp. Mm-hmm. nee na yéen. salaam my people. from who. from Fatou Mass Wade. waaw mais mën na doon nominé ki nga xamante ne mooy séeréer ak kii moom <laughs> Fatou Mass yi neexi borom bàkku bi. Mhm. macha allah. ah ñu ngi ah, wax oncle um, Oswada congratulations. Um, because he was nominated uh, yesterday. gisal ko you know xam dañ ko nominate xam nga ñu ngi koo ñaanal yàlla. mu taxawal baa ñu saaw. definitely. te loolu loolu lu neex la. lu neex a dégg kookoy. definitely Fatou Mass Wade ànd ak suñuy doom ndey nga xamante ne. Marianne Gomez ca ca ca ca Angleterre. waaw kooku demul ba nu. waaye dama ne ah, Sana Sarr tamit kenn demul ba ko. Sana Sarr kenn demul ba ko. di nuyu waa Bañul ab Laay Rossi. ñoom tamit ñu ngi ci biir. def ndaw mu ngi ñuy nuyu. waaw ñancoo yi ñuy nuyu. baax a baax ak ki nga xamante ne mooy doomu ndey mi ànd. ndeysaan di Jobs di Jobs. yaa di man sama waay la. démb rek may ñëw ma tase ñëw ma ne ko com. Mm, loolu la mm-hmm. waaye nag. dafa am loo xamante ne bu la ko nit ñi sasee rek. yow moomatuloo sa bopp. te xam naa ne lii sant yàlla bu baax la kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu suñu bàyyi Cheikh Tidiane Samb bu Alaaji Baabu Samb borom a euh, euh, Hollande bëgguñu lool di ñu advice di ñu teg ci yoon bu baax a baax ñu koy ziar. ñoo moom moom waaw ak ki nga xamante ne. mooy kii xawtu koolit ah ñëwul de SDAM dafa am. non non dinañ dina ñëw. dina ñëw xam nga moom moom mu xaddam

dañ am surprise bu rëy boo xamante ne. waaw. we have free tickets here. call tickets yi mm. we have questions. questions yi nga xamante ne if anybody knows the answers ah, to these questions sanga you will have a free ticket. you nga Punga attend that uh, amazing program. Abu uh, Hamantene, uh, ah, Nyancho is calling the Poliso album launching, and the questions are What is the date of of Nyancho what is the name of his first song? Uh -huh. What is the name of his uh, first dancing group? Uh -huh. And what is his real name and so on? These are the questions. These are the four questions you have to call, and the number to call is anywhere you are in the world, you can reach to us. Plus 220 286 0150. Yes. In case if you are in the Gambia, you can just call 286-0150 and the questions read the date of birth of Nyancho, his first song and uh, his uh, uh, first dancing group with his name, his real name and surname. These are the questions. No, finish for someone to I'm not going to go. go, Go, go, going to ha ah, pour gal hakkilo blandi doron a ah, ɓayde mbiyal no komin ko ga ñatiren nde a ah, programme ballam yalan komin ko ñanco a pacakeji the bates artist you with the manager dijos eh, itollaye gambiyenol kumande ye kumande munala programme bala ɓe ñin ñanta pour que soto a de a police o album lancin aɓa kala mum tola independent stadium bakaw uh, saw 9 10 you the number plus 220 0150 or 286 0150. That is just the number to call. xamal ma gën a nekk ci mbir Mass wax dañoo ñëw ànd Fatou Mass. Mm. yow da noo bëgg. mu dëggu ci yow. aw buur këram yow namuloo saala yaay coppati yaay seedu Ousou Wada. <laughs> andi Fatou nuyu nañ la nuyu nañ la nuyu nañ nga bokk. Mm-hmm. ñu jigéen ñi love story will be on your way so stay connected don't go anywhere bu fen we will just have a short break when we come back we continue and business is next business is next and don't forget to call the number so that you can have